opposition bu bees bi massa massa massa massa massa massa xeer gi saf na dal na metti na man li ma gën a bañ sama àddina mooy nga toog ci palaato fenn ne mënuñoo wàññi dund bi kenn mënu koo wàññi waaw fenkat yu mag yeeg yu ndaw yi yépp opposition bi ñu ci dàq fenn barki démb la toog ci plateau bi ne dund bi kenn mënu koo wàññi tey jii bu ñu toogaatee ne li ñu wàññi daa ndaw xam nañ ne fenoon nañ démb am réew nag mënoo ne da ngay woo ci ay fenn day leen wax deug bu ngeen gis sénégalais yu sour leen seen mana a fen la da ngay a dund bi kenn mënu ko wañi ba pare ngeen na mak Sall wañi woon na kon yéen seen wax da amul am cohérence da ngeen di am dignité jema ragal yalla tout ci seen wax ndax am rew mënoo ko yor dund ba kenn mënu ko wañi loolu ñak xam-xam ak xol bu tang ngeen di waxe lima gëna metti ci yeen nak moy lu ngeen wax suba bu gina suba jëfi président Ousmane Sonko ak Diomaye da ngeen dund bi keer mënu ko wañi wañi nañ ko lu ngeen indi tay da toti <laughs> yeena gatt xel li yeen da ngeen a xel baye bàyyi baara kusaanaar da daan wax ne luy jari million bu la ci fukki deureum boole wala ñaar fukku da ngay serier gatt xel mo japp opposition Sénégal euh, Sénégal sax amul opposition ay fenkat kata fi nek ak rambaaj ak yaq kat ak sos kat ño fi waye yalla da dana dimbale ba luñ fenn tay bu suba jëf ju rek dindi ko da ngeen ne woon kenn mënu ko wàññi wàññi nañ ko ñun bu ñu wàññi loon dërëm bëgg nañ ñun ñooy liggéeykat yi ñun ñoo yor kër ñun bëgg nañ képp ko xam ñett dërëm ni ko wàññee ci benn mburu nga ne daa tuuti yow xamoo commerce mosoo commerce yow mosoo commerce xamoo commerce waaw xamoo ko soo xamoon doon wàññi ñett dërëm ci mburu nga ne daa tuuti waaye nag dana tuuti. ndax bo sañoon duñ ko wañi ñun xam nañ leen min nañ leen bu ngeen sañoon dañuy yok mburu mi ngeen waaw yok nañ bu ñu yokon dërëm ci mburu mi kenn du dégg kenn kenn du dégg far ñu wañ ci ñet dërëm ngeen ne loolu ngeen di jël de da wara fexé dañu la wa daan ya ñun de fenn nañ ndax dañ ne kenn du wàññi dund bi te dund bi wañ nañ ko wax dëgg yàlla fen nañ nit ku baax non lay def man suma waxé lu dëgg damay génn ci penc bi ne li ma waxoon démb ne dëgg bàl ma barke sëñ fallu kenn du wàññi dund bi bërki démb ngeen ko wax fii wàññi nañ ko wasalaam jomaa yi Sonko doxal leen man nag yéen ñaar rek laay topp ku tudd jomaay ma tudd la ku tudd Sonko ma tudd la ñaar ñooñu laay topp